amu leen ci awa te nag lii ay kàcc la ki fenn mensonge d'état la waxi Pape Alé Niang la ma ngi ci journal bi di Rewmi Quotidien yéen kaay gi de la Tribune xëy dañu xibaar naan ñu en tout cas li ambade sall procureur jamono ji ma ngi wër nag Pape Alé Niang kan moo koy jox ay xibaar yéen kaay gi de Libération xëy dañu xibaar naan ñu am na ñenn ñoo xam ne ñoo ngi doon wax ne enquête bi li nga xam ne moom la waneeku na mooy disparition volontaire loole nag amul ci enquête bi maanaam ndorteloo enquête bi amul benn yoon boo xam ne wane na ne disparition volontaire moo am ci mbir ñu nekk ñoo rey seen bopp yéene kaay gi du l'observateur nee na ñaari gendarme yi nga xam ne ba léegi kenn xamul ci ñoom dara te kenn ki di liggéeyee inspection générale d'état ki si des di a renseignement militaire journal bi nee na ñoo ci Kafountine ci gox bi di Njumuna askan wi nga xam ne ñoo dëkk nag ci gox boobu ñoom jamono ji nag ñoo ngi dànkaafu ba nag di ñago maanaam di barricade wo yéene yi ne moo ci liggéeyee renseignement militaire jabaram wax Source nee na ñaari gendarme yi nga xam ne kenn amul ci ñoom ay xibaar seeni mbokk tey jii danañu janoo ak taskatu xabaar yi maanaam bu ñetti waxtu jotee démb amal nañu ab réunion maire bu Kafountine moom nag li muy sàkko mooy mbir mi leer mbir mi leer yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy wax ci Marie Khemesse Ngom Ndiaye ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér gi yaram gi démb ma ngi woon a Assemblée nationale ngir nag ñu daal di koy natal ab budget natal nañ ko lu toll ci cent quinze milliards waaye nag démb ko député yi bi waxul dañu ko fàtte wax nañu ko jafe yi nga xam ne moo am ci wàllu yaram gi Wara Sarr ci biir journal bi nee na bëri na bëri bu fajukaay yoo xam ne jamono ji liggéeykat yi ci jafe-jafe yu métte métte la ñuy dund moo xam ñi liggéey ci hôpital Dantec moo xam ñi liggéey ci hôpital Sétéwo moo xam ñi liggéey ci hôpital Dalal Jàmm yéenekaay gi di enquête ñu xëy fekk fa njiitu réew mi di président Macky Sall nee na université Amadou Mahtar Mbow danañu ko inauguré benn fan ci de décembre atum 2022 yéenekaay gi di Vox Populi lu jëm ci wàññi njëg yi ñi nga xam ne ñooy détaillants yi nee ma borom boutique yi tey jii la ñu sumb seenub gerewa ndax nee nañu mënuñu di jaay di perte <laughs> yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu assemblée nationale la ñu tudd ak di fa dégg ay scandale bëri na lool lool ci assemblée nationale ndax nag journal bi nee na ginnaaw bi nga xam ne moo fa amoon ci lu jëm ci wàllum trafic faux billets amoon na tamit beneen scandale boo xam ne jëm na ci trafic passeport diplomatique waaye tamit am na beneen scandale boo xam ne doon nañu ko tudd assemblée nationale lu jëm ci député yi nga xam ne doon nañu woon fay njombe la journal bi nag nee na kañ lañ ko daal nag falsifié ginnaaw njombe yi nga xam ne amoon na ci trafic faux billet ak passeport diplomatique ginnaaw loolee nag la wax ne dañu ko daal di falsifié ki nga xam ne mooy Mamadou Lamine Diallo bu tekki moom nag nee dina porte plainte ndax mbir mi dafa garaaw loola yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na Cheikh Ahmed Tidiane Cissé teg nañu ko loxo ma ngi cib garde à vue plainte xam ne yëkkati woon na ko ma jëmale ko si jumaa yi waxoon enquête Cheikh Ahmed Tidiane Cissé tey jii la janoo ak procureur yéenekaay gi di Source A xëy ji conflit foncier bi am ca Tivaouane Peulh lu toll ci 46 parcelles maire bu Tivaouane Peulh tey jii waa di convoqué nañ ko yéenekaay gi de La Tribune nee na si waatu Karim Wade loole nag beneenub dil la ci ndodd askanu Sénégal ndax ana xaalis bi nga xam ne moom lañ doon jiñ Karim Wade ne alalu askan wi la ko daal di lu bala Tribune yéenekaay mooy wax indi ay leeral ci vingt-neuf milliards yi nga xam ne moom la ñu koy tuumaal ci lu jëm ci mbiri Prodac ndax nag Ousmane Sonko njiitul Pastef fan yi ñu génn dafa wax ne am na benn rapport bu inspection générale d'État boo xam ne dafa jàmbaaraam mu tuuma Mame Mbaye Niang lu toll ci vingt-neuf milliards ci Prodac loolee moo tax Mame Mbaye ni ki démb gontu na janoo ak tasul xabaar yi doon ci indi ay leeral moom Mame Mbaye Niang nee na amul benn rapport IG boo xam ne daan na koy épinglé ci lu jëm ci mbirum Prodac te nee na amul benn yoon boo xam ne inspection générale d'État wax na ne Mame fute yéene kaay gi di enquête xëy dañu xibaar naan ñu Mame Mbaye porte na plainte Ousmane Sonko ci kanamu procureur yéene kaay gi di Le Vrai Journal xëy dañu xibaar naan ñu sa àllub Casamance ba jàppante am na diggante armée bu Sénégal ak ñi nga xam ne ñuy waa MFDC yéene kaay gi di record nee na match bi nga xam ne moo war a dox diggante Sénégal ak Qatar match bi naruto yomb de ndax nag éliminer pays organisateur loolee ku ne leen yomb na nag da leen di nax Ballo Touré a dox diggante Sénégal ak Qatar ndax dafa forfait yéene kaay gi di sunu